Abdoulaye Dia nekk activiste fii à l'intérieur de Kayar di membre collectif saytu lu ñu moom aujourd'hui tey ñu dajaloo fi aussi di dénoncer ay situation yoo xam ne dafa nekk biir Kayar mu nekk ay situation yu catastrophique lu ci mel ne band filao bi nga xam ne on est exposé à lavancé de la mer te bande filao bi moo ñuy protéger te boobu ba léegi aussi ñu ngi gis ne la municipalité mu ngi taxaw di yabal ay nit ñuy dagg la bande filao beneen bi aussi mooy boobu aussi ba léegi mooy gis ay bornes di gis yoo xam ne aussi ay lotissement yoo xam ne xaw ma ay alignement yoo xam ne ñu ngi xew ci biir bande filao bi di ci alerte eaux et loolu mu wax ci aussi beneen bi aussi ñu gis ba léegi aussi commune bu kayaar ba léegi moom day continuer di def ay alignement te mairie amul droit def alignement mairie lotissement la war a def te Kayar foo dem quartier boo dem ba léegi alignement la la xew njoxob alignement la la xew ci biir cité yi alignement la boo demee ba Daaru Salaam perron bay dëkk lépp ay alignement la loolu nag ñu ciy alerter les autorités pour ñu wax mbiru ci pour ñu wax ci mbiru kayaar te ñu xam ne alignement doxalul ab dëkk beneen bi aussi ñu am aussi lu ñu nemmee ko lu mel ne ay fonds yoo xam ne dañu nekk ci biir mairie Kayar di lu mel ne foyer des jeunes boo xam ne financé woon nañ ko en valeur de 35 millions lañ ca def méngoowul ak somme ba am aussi beneen somme boo xam ne Cosmos moo ñu ko attribué woon ci wàllu pétrole bi loolu aussi ñu gis ne aussi somme boobu demoon na millions ñu jëloon ci lu ëpp def ko ci budget bi ñu ne dañ ciy defaat réflexion mairie bi ba léegi aussi gisuñu loo xam ne c'est convaincant ñu gis si aussi ñuy voté ay situations yu déplorable si si bi ñu attribué ne 1 million pneumatique gu oto boo xoolee ba ci biir oto bu bees tàkk noo koy attribué 1 million pneumatique gu oto noonu la réere aussi gisuñu ci dara beneen bi aussi mooy ñuy taxaw encore di alerte encore les autorités ci foore bi di alerte encore les autorités ci lotissement bi parce que lotissement bi mësa am Kayar en 2006 lotissement boobu gis nañ mbedd yi nekkoon 20 dañu commencé di ko dagg mbedd yi di ñu koy wàññi ba mbedd yi nekk 7 mètres te ñi koy wàññi aussi ñooñu c'est la municipalité on combat pas nag on combat pas la municipalité en tant mais on combat l'équipe municipale qui est de faire cela di alerte aussi di alerte aussi le président de la république Macky Sall parce que moo waxoon le problème foncier ñu koy xamal aussi na yebal waa Descos waa Descos à l'intérieur de Kayar ñu xool parce que Kayar mu ngi souffrir suufu Kayar mu ngi souffrir ay doomu Kayar ñëpp ñu ngi souffrir ci wàllu lotissement yi illégaux yi nga xam ne moo xew biir Kayar beneen bi aussi mooy ba léegi aussi. di di aussi gis aussi lu mel ne corruption mel ne dafa yaatu Kayar parce que depuis ba fi usine Barna dikkee ba léegi fu ñu toll ñu ngi waxtaane wàllu corruption ñuy alerte aussi OFNAC moom mi nga xam ne moo yor loolu mu dugg Kayar kat yebal fi ab commission d'enquête pour ñu xool loolu. ñu gis aussi encore li gën a doy encore Kayar mooy li nga xam ne encore lotissement yooyu dese nañ ci leeral dara askanu Kayar da ngay gis rek ak nit koo xam ne day xëy rek taxaw. di wëlbatiku di dagg ay terrain di ko jaay te xamuñu fan la koy def forêt bi aussi eaux et aussi am na lu ñu nemmeeku aussi si ñoom am na ay nit ci mairie bi yoo xam ne dañuy jël filawoo bi di ko jaay lañ koy jaayee nag mairie la ñuy encaissé xaalis ba loolu aussi muy situation boo xam ne dafa catastrophique à l'intérieur de Kayar bon di bàyyi sama naataango Cheikh mu yeggale di xam aussi ñu ngi alerter toutes les autorités pour ñu bàyyi xel Kayar parce que Kayar zone la zone de réussite la kon ñun waa Kayar développement soxal nañu maa ngi tudd Soxna Mati Ndaw présidente des femmes fii ci Kayar ñun nag dañuy soppali jën te dëg-dëg bi mit lool ci xol yi dëg-dëg bi mooy ban usine farine de poisson bi tabax ba yeggal di xaar autorisation exploitation mooy li nga xam ne dafa bëgg a faagaagal li nga xam ne mooy bépp askan bu ne Kayaar ki nga xam ne mooy sunu yaakaar moom lañu aju ci moom mooy sunu kilifa képp ku dëkk Kayaar ku dëkk commune Kayaar mooy sa kilifa bu demee ba ci digg peuple mu ne carrément usine farine de poisson bii moo gën jigéen ñi lakk jën ci Kayaar ah ñun dañoo war a tiit waaye du tiit de dañ koy saafara ba mu saf saafarawu ndax tegu fi boppam askan wi moo tax mu ne fa kon la bëgg xolal bul bëggati dëkk ba dëkk fa na la dëkk ba bëgg nga dëkk fa mooy wax lii nag mooy lii nag comme sunu meeru Kayaar bu demee ba Dakar mu wax loolu rajo sociaux yi ñëpp yóbbu muy muy wax boo xam ne. wax bu doy waar la ñun dañoo da ñun suñu yaram sax dafa tàng waaye day jeunesse ak jigéen ñi bu ñu jógee ci développement développement du dem de kon war nañoo bàyyi xel jigéen ñi nag war nañoo bàyyi xel jigéen ñi nag ak génération future war nañoo bàyyi génération future xel pour bu ñu ñëwee am nañu fi fekk te te usine farine de poisson bii bu existé xool gestion durable dootu am géej gi day dee napp mu baax dootu amati. te kon ñëppay lalu tëddi du yem ci transformatrice kese de pêcheurs yi ñëpp lay laal ak consomateur yi ñëpp lay laal kon dama ni nañu bàyyi xel nag ci li ñuy faral di wax gis nga wax bu sa génn sa gémmañ moomatoo ko waaye nag kenn ku ne sa xol ngay waxee la tax ñu nangu amalu tax maletu xaalis si ñuy teg maletu xaalis si ñuy teg di jox nit ñi di leen miikloo loolu moo waral lii waaye ñoom ñëpp lañ doon baaxul waaye tey bu àllindooy jógee ni baax na moo gën transformation des produit halieutiques dama ne xaalis baa tax xaalis ba moo tax xaalis nag day jeex waaye ngor du jeex te xaalis bu bu la bu la xaalisu poison moom la ndax xaalisu riba la xaalisu riba boobu dina jeex waaye du jeexee yomal xeyaam su boobaa dina kekk sa biir te bu boobaa jaanama mooy sa kër kon dama ni dama ni ah. ñun dey ñu ngi taxaw tem incha allah ànd ak suñuy xale jeunesse bi ñu ngi ànd ak jeunesse bi sooba yàlla seet loolu ba xam foofu loolu fan la ko teg li mu wax fan la ko teg mooy fi mooy xaalis bi rek kon wasalaatu wasalaam merci beaucoup. Guèye le coordonnateur du collectif euh, saytu suñu moomeel leerlu bu euh, de Kayar donc euh, le collectif saytu sunu moomeel de Kayar est un mouvement de proposition. et d'action citoyenne, mais aussi de veille et d'alerte sur, les, sur la gestion des affaires, cela veut dire les ressources de la ville, mais aussi les services de la commune. Il regroupe tous les Kayarois de tout âge, conscients et qui partagent les idéaux de justice, de transparence et d'équité sur la gestion de la commune. Et aujourd'hui, nous nous regroupons ici, en masse, pour déplorer, pour dénoncer et alerter les autorités sur des faits qu'on juge illégaux au niveau de notre localité. Sur ce, nous, avons, nous, nous, nous, nous, nous alertons sur trois faits. Sur trois faits que nous jugeons illégaux. Le, des lotissements illégaux, ça veut dire qu'il y a des alignements qui se, font partout dans la commune de Kayar. Il y a des, il y dans des zones qu'on que, que, il y a des zones qu'on avait jugées pas utilisable. Ça veut que la zone tampon issue du premier lotissement qui a été morcelée est vendue. Maintenant, atteinte de boulimie, la municipalité s'est retournée vers la bande de Filao, qui était un projet, projet américain euh, nommé PL 480, qui a été installé en 1900, de 80 à Maintenant, qui était là pour protéger l'avancée de la mer, de la population caillaroise dans les années futures. Mais maintenant, aujourd'hui, avec l'érosion côtière, on a vu des usines qui sont tombées. On a vu des stations à gasoil de pirogue qui sont tombées à cause de l'érosion côtière. Maintenant, la mairie s'est permis d'attaquer cette bande de filao qui constitue un bouclier de protection face à l'avancée de la mer et à en faire des lotissements illégaux. Si vous allez au fond, à l'intérieur de la bande de Filao, y a des morcellements à l'intérieur. y, a des bandes, il, y a, il y des arbres qui sont coupés pour bois de chauffe, vendus par la municipalité, euh, avec, euh, en concert avec, les, les, en concert avec, euh, nous accusons, les eaux et peut-être. Maintenant, y a des conséquences, parce que cette coupe-là a causé la salinisation des terres en Djokhok. y a, ça a causé aussi euh, sur sur l'habitat des occupations irrégulières dans la dans des zones loties et les zones non loties maintenant sur le le sur sur sur la pêche aussi on a vu domaine publico-maritime il la la réduction des zone de parcage des pirogues maintenant les pirogues on est obligé de les délocaliser aux, aux maisons pour pouvoir avoir de l'espace pour les parquer donc aujourd'hui nous nous nous nous dénonçons nous alertons les autorités sur les agissements de la municipalité. Parce qu'il y a une usine de farine de poisson qui est installée <clears throat> dans une zone, dans une zone déjà lotie. Et là aussi, nous interpellons l'IGE sur la gestion de la municipalité, mais nous interpellons aussi OFNAC sur les, les, la, les, tentatives de corruption, parce que Barna, on sait que c'est, est là, vraiment avec beaucoup de corruption. Maintenant, sur le volet foncier aussi, nous faisons appel à la DESCOS. Nous demandons au de la République d'envoyer la direction de surveillance et de contrôle de l'occupation des sols de venir faire une enquête, de venir faire l'audit foncier de la commune de Kayar. Maintenant, le, le, troisième volet que nous alertons et que nous dénonçons aussi, ce sont la malver, une, des, les, des, malversations fonds financières. Parce que nous avons reçu en 2017 une patente venant de la Cosmos à hauteur de 107 millions. Et depuis ce jour-là, nous, nous, sommes, nous ne savons où se sont passés ces fonds. Ces fonds restent mystérieux et nous demandons vraiment des comptes de la municipalité euh, pour, qu soit, pour que ces points soient élucidés. Maintenant, il y a aussi un projet de foyer des jeunes à hauteur de 34 millions 800 qu'on peut arrondir à 35 millions et que le foyer est toujours, le sentier est en arrêt. Euh, le promoteur lui-même avait construit là dalle et les fonds, on nous dit que les fonds se sont épuisés. Donc nous demandons aussi des comptes sur cela. Donc nous demandons à l'État d'agir, de venir vraiment faire des enquêtes qu'il faut, l'audit qu'il faut dans la commune de Kayar. Et nous réclamons que ces, que ces agissements illégaux puissent être arrêtés par le, président de la République en nous signant, en nous amenant une délégation spéciale parce que nous n'en pouvons plus de ce pays. Donc c'est sur ce et demander, nous demandons solennellement à toutes les instances d'audit, de contrôle sur la transparence, sur le foncier et sur la gestion des ressources euh, publiques de venir à Kayar parce que ce qui se passe à Kayar est hors contrôle. Et Kayar entre dans, de, dans, un avenir sombre et que nous ne voulons pas que Kayar revive de pareilles histoires. Donc nous demandons solennellement, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Son Excellence, Monsieur Macky Sall, Kayar n'a plus besoin de cette équipe municipale. Amenez-nous une délégation spéciale. Merci.